pratiquement pas voie normale bi nga xam ne xëy na euh, Sénégal autorisé nañ ko wala permettre nañ ko mais jàpp ne xëy na ñenn ñi dañu obtenir ay fonds yoo xam ne de manière illicite euh, accusation yi yàgg na ça ne date pas depuis le temps du PS avec euh, Abdoulaye Wade ñëw aussi ci Abdoulaye Wade ak Macky tey jii ni Macky Sall régime am ñoom ñooy accusé tey jii un opposant yëf yooyu noonu déjà ban lecture nga ci am mais aussi est-ce que lu ñu mën a encadrer la pour éviter que mën nañ et tout le monde sait que on n'a pas besoin de réinventer la roue. Mm-hmm. nañ dem xool feneen fu ñu koy defee muy marché ñu def exactement la même chose wala ñu améliorer. li ma jaaxal financé. moom ci loolu laay ñëw. Mm-hmm. li ma li ma li ma li li li ñu xam mooy que y a une loi qui encadre le financement des partis politiques. mais qui ne pas appliquée. malheureusement c'est ça le problème. Mm-hmm. loi boobu bu ñu ko appliqué woon peut-être que accusation yi ñuy wax du am. mais man li ma gën a jaaxal waxuma ne amul ay financement occulte yu jëm ci parti politique loolu s'il vous plaît euh, loi bi ngay wax nii est-ce que ni ñu nekk ni Sénégal ni mu bindoo nii ak les 300 partis politiques mën nañu appliquer cette loi mais justement 300 partis yooyu daf ñu waroon ñaax ñu réformer su notre loi sur les associations et les partis politiques mm réformer ko de façon à réduire le nombre de partis politiques wax naa ko waxaat ko waxaat ko pour réduire le nombre de partis politiques c'est très parce que parti politique bi buy créé bu ñu koy le parti politique a été créé pour concourir au suffrage universel ñaata parti politique ñooy concourir au suffrage universel dès lors que l'objectif n'est pas rempli mhm. l'association doit être mais parti amatul suffrage universel bi nga wax noonu euh, gars ils y vont en coalition en même super par la loi la uh-huh. coalition la coalition est un regroupement de partis politiques qui composent cette coalition la ñu quarante vingt quatre heures avant le dépôt de son dossier. Mhm. moo tax chaque fois élection bu amee ñu ne coalition bi dafa war a ñëw vingt quatre heures avant la veille du dépôt de sa liste ou de sa candidature pour notifier à l'autorité administrative son existence bu élection yi jeexee coalition boobu existeetul légalement mhm. il ne la coalition n'existe que pour le temps d'une élection donc bu fekkoon ne ci loi bi régir parti politique yi dañ ci ne parti politique bu ñu créé ci diiru juróomi at boo demul ci benn élection majeure muy élection locale di élection législative wala élection présidentielle dañ lay dissoudre automatiquement bu boobaa Mamadou Awa Ndiaye d'ici cinq ans dix partis politiques. mooy mais parti yi parti ñu ngi dem élection. seulement ci ci maanaam demuñu ñoom dong. dañuy langaamu. waaw mais est que du loolu mooy existence bi aussi. non parce que tey jii nii parti mëntul dem moom dong fi ñu toll nii est-ce loolu mënti naa nekk. mais aujourd'hui y a y a plus de mm-hmm. dégg amuñu activité. ils sont mhm. derrière les grands partis politiques. OK. Dans, derrière les grands mouvements. En Marche, les Républicains, etc., etc. Mais c'est des associations, c'est des partis politiques, c'est des mouvements, c'est des ceci. Mais amuñu fës bi yenn parti am Sénégal nga xam ne bu ñu convoqué on est obligé de convoquer dans une salle pour recevoir 300 mhm. mhm. personnes. fële quand on convoque on convoque 5 6 grands courants yu ëmb ñeneen mais Sénégal fii on donne trop d'importance à des gens qui vont juste faire un congrès virtuel def benn euh, PV de d'assemblée générale déposer ko ministère de l'intérieur ne man parti politique. ah vous pensez qu'après une élection donc mën nañ ci xam euh, parti nga xam ne ñoo joué euh, un rôle majeur ci élection yooyu noonu ñu reconnaître leen comme des partis politiques comme des partis politiques pour ñu mën a bénéficier li nga xam ne mooy financement bi. boo gisee distorsion quelques années après nga modifier mais tan que essayé wuloo doo avancer. Mhm. aujourd'hui bu ñu xoolee les dans les quinze dernières années xam nañ ñan ñooy dem élection ak ñan ñoo demul élection. Babou Wade grand parti duñ disparaître. su ñu waree disparaître ñu disparaître c'est quoi un grand parti. un grand parti c'est am nañu passé politique. c'est exercer nañ le pouvoir mais maintenant ñi ngi langaam comme ni nga koy waxee. Oh, mais il y a en France le parti qui a la présidence de la République da nga xamante ni mu tudd. non je ah, m'en rappelle noonu. <laughs> mais bu ñu ko appliqué Sénégal tey jii nii j'ai des noms en tête yoo xam ne nar ñu exister. comme. PIT LD. RND par exemple ils existent plus de fait. oui de fait ils n'existent plus. ils sont dans la liste des partis politiques. Mm -hmm. du Sénégal mais en termes d'activité ils n'existent plus. amuñu euh, xaw ma ndax ñu ngi réunir mais en tout cas participer wuñ ci benn élection. Mm-hmm. kenn déggu leen ñu prononcé wu sur l'actualité nationale ou internationale donc ce n'est plus des partis politiques un parti politique. c'est quelque chose de dynamique c'est un organisme il intervient dans la vie publique du pays mhm. su fekkee ne amul benn njëriñ ci réew mi bu dara xewee kenn du ko dégg bu problème amee du indi solution kooku nekkatul parti politique ah, bëggoon naa la poser benn question balaa ñuy avancer nga wax ci sa xalaat un parti dissous comme PASTEF par exemple ses membres qu'est-ce qu'ils deviennent est-ce que nañu droit ci participer ci élection absolument parce que débat boobu ñu ngi koy commencer poser absolument absolument on a dissous le parti. Mais loolu ça ne les concerne pas. Ça les concerne pas. On a dissous l'organisation, les personnes gardent tous le droits. Ah. mane ma ne ma mhm. ne man man su ma nekkoon un membre de Pastef coalition bu ko créé Pastef laa koy tuddee. encore doo ci changer ku dara. loi bi terewu ko. c'est le parti politique Pastef qui a qui est dissous. Okay. le mot Pastef on n'empêche à personne de l'utiliser man su ma doon ñoom su may créer coalition bi dem présidence. présidentielle. gardez le même laa koy tuddee. ñu avancé ci waxtaan wi.